ci lu taxawal yoon wi te taxawal yoon wi muridullahi mooy taxawal diine lislaam ah, li nga xam ne ni sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi eh, moom la ko yàlla jox mu indi ko fi kon nag eh, man dama ciy seede rek loolu ndax eh, taalibe dëgg la jullit dëgg la ko amoon pas la ndax ah, lii mu réaliser rek dafa dafa dafa dafa doy ci pas kon nag daanaka dafa dem këram euh, fam dem moom yaakaar naa euh, li ñuy wax ne mooy nit ku ne li ngay ñaan mooy wàcc doom ji baax ci lay ñaanaan walla nga wàcc fi jëf lu nit ñi di jariñoo lépp ñëpp xam nañ ne wàcc na fi lu nit di jariñoo ci si biir wàcc na fi ñu formé ba ñoo ñu mën a jariñ ay nit man nag sama kóll rek moom dañoo bokkoon euh, bëggante ngir yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa